waaw waaw pendant ce temps premier combat de la soirée ngi ci biir géew bi Fess Daddy ngay seen noonu Fess Daddy ngay seen noonu Cheikhou Dieng moo toogal 16 coach Cheikhou Dieng mi noonu moom ngeen di seen noonu moom moo sol maillot bu bleu bi moom moo ko toogal 16 kii di Fess Daddy de l'autre côté Mana coach Babacar Diagne moo ko toogal 16 Babacar Diagne moom ngay seen noonu Babacar Diagne moom ngay seen noonu léegi arbitre bi sifflé génn seen diggante Kheus Dady Kheus Dady bu jaxaay maana bu yoof arbitre bi sifflé na génn na seen diggante Kheus Dady maana waaw waaw rofo nañu rofo maana bu yoof Kheus Dady bu jaxaay maana bu yoof ak Kheus bu jaxaay attention attention Kheus Dady c'est-à-dire rakk la ci Amdi Amdi Thiam Amdi Moustapha Amdi Thiam Amdi bu Jaxaay c'est-à-dire rakam la maanaam mi ngi jóge Yoff le derby Yoff Jaxaay avantage kan lay mujjee attention Mana attention Kheus Dady daan na ko Kheus Dady Mana Kheus Dady daan Mana Sassari bu Jaxaay daan na ko jël bu rëy Sassari bu Jaxaay daan na maana jël bu rëy Sassari daan ko jël bu rëy waaw waaw moom di seen noonu bëre jël bu rëy Sassari daan maana jël bu rëy waaw waaw mi ngi di seen noonu waaw waaw